comme ni ngeen ko xamee euh, ñun 2014 lañ ñëw ci boppu mairie Kédougou bu ñuy ñëw aussi nit ñi gis nañ mairie bi nu mu meloon et euh, gis naa ne ne aussi euh, tey tey ak 2014 mairie bi ute na trop xam naa ne nag comme ni ma la waxee sànq ci tubaab ku bëggul gis du gis mm-hmm. donc ñun bu ñuy ñëw ci mairie bi mun naa ne mairie presque amatuloon woon Kédougou parce que équipe bu fa donc euh, service public bi très nit ñi dañ doon daw ci la maire yi dem ci yi maire signature pour defar ay kayit juddu pour wala document d'état civil wala certificat résidence wala euh, imaginez vous nit ci institution di daw ci biir maire pour ne maire signature loolu laa njëkk donc institution publique donc il faut que le service public soit rendu loolu laa njëkk def d'abord décision bi ma njëkk jël def ay horaire de travail mané len heure bi ngén di xey heure bi ngén di jëlee pause heure bi ngén di wacc ñu bari mere ma non ngi jël mairie bi comme sa sa euh, entreprise mairie bi du sa entreprise mairie ma ne ko non jëleewu ma ko noonu mais liggéey dafa am yoon xuloo naa si ak liggéeykat yu bëri mais bu demee ba ci yàgg ñoom ñëpp dañ ma jël delloo dëgg bi ne waaw li ma doon wax def na parce que dama defaraat ordre ci mairie bi ma ne institution municipale d'accord naa nit ñi ñëw nee ma tey euh, maire defaroo yattali bi wala maire defaroo lii mais maire ñëw naa ci mairie bi mënuma am document d'état civil loolu mënuma ko nangul kenn ma ne la première vocation de la mairie c'est le service rendu au public ku soxla kayitu juddu boo ñëwee nga am ko su soxla carte certificat résidence boo ñëwee nga am ko boo ñëwee certificat décès nga ñëw nga am ko donc loolu laa njëkk def d'abord organisation municipale bi ensuite ma defaat euh, euh, lu ñuy wax informatisation de l'état civil parce que jiixi jaaxa yu bëri amoon na ci mairie bi foofu parce que ba léegi loolu sax dina dinañu topp 30 ans juddu yu am depuis 2014 ba andi tey ñooñu ñëpp amul benn jiixi jaaxa seen kayitu juddu donc en 5 ans, yi ñoo ay jix mais lool tamit ñu ngi koy population parce que nous problème bu nek solution donc euh, xam nga euh, tay euh, erreur sa état civil du maire rectifier mais tribunal mm-hmm. tax nit tribunal pour corriger ensuite ma défarat ben système pour pour ramassage des ordures parce que Kédougou bi may ñëw ci foofu dëkk bi vraiment dëkk bi tilimoon noonu toog na ay salte marché bi nañ ñi presque euh, dañ nekkoon ci danger parce que xam nga marché bi foofu lay lekk yi yëpp di jógee mais euh, suñu alimentation bu sellul rek dina ànd ay feebar yu bëri moom looy tax ma jël engagement d'abord ma ne même bu ma mënul for mbalit bi euh, commune mi bi yëpp mais marché bi dama koy setal pour vraiment a euh, vraiment aar askan bi. ma def en place système de ramassage des ordures ensuite ma équipé commune bi ay camion euh, mbalit ensuite camion yuy vide force. ensuite ma tabac ben euh, décharge fu sur sotti mbalit bi. Mm-hmm. ma def ay recrutement ay emploi donc ensuite ma ci wàllu éducation Tabac n'a ay salle de classe. équipé n'a ay salle de classe chaque année damay faire des fournitures damay jàppale fonctionnement aussi IEF bi donc euh, walu sport aussi damay jappalé gune yi ASC yi subventionné len euh, jox len ay équipement euh, walu santé damay joxé ay médicaments chaque année damay subventionné ay médicaments damay jappalé fonctionnement bi comme ni ngeen ko xamé aussi tabax na ñaari centre de santé secondaire et ci poste de santé de là-bas aussi construit naa foofu une salle échographie donc ni nga ko gisee. Euh, côté santé aussi def nañ lu bari. et tay tay aussi côté infrastructure énergie donc def ay extension de réseau électrique ci quartier yo xamantene ne amuñoon courant ñu nekkoon ci biir dëkk bi donc pas quartier périphérique rek même même quartier yu nekk ci biir dëkk bi def nañ extension réseau defaraat nañ réseau bu fa nekkon bu yàqu euh, ensuite euh, def nañ extension réseau d'eau bi ñu ngi si liggéey ñu ngi def extension bi et côté aussi euh, environnement euh, gis ngeen donc euh, quartier def nañ en place vraiment euh, système bo xamante chaque fois dañuy ñëw jëlee dépôt sauvage yi yobbu ko ci dépôt bu ñu construire et tay tay mun naa ne laal nañ secteur yépp mais comme ni ngeen ko xamee Kédougou dafa dañ ko yàgg fàtte mais tey ku ñëw Kédougou dina xam ne changement bu rëy am na Kédougou développement il faut comme organisation et la tey région Kédougou est xoolee lu muy génnee ci comme koom mun naa région bu njëkk la ci Sénégal du côté exportation L'état présent, tax euh, président Kédougou en métropole d'équilibre c'est ce ñuy permettre ñun parce que ñun le fait que nous ériger Kédougou en métropole loolu dinañu permettre ñun aussi ñu approprier au projet parce que déjà président bu les décision rek def Kédougou métropole c'est-à-dire fofu état mo engagé pour créer ay investissement yu structurant pour Kédougou pour mëna sukkali bi parce que des fois bo xolé budget commune yi mënul sukkali gox bi da ngay def ay micro projets mais mëno def projet yu reuy légui à partir de cela y dina am nouvelle limite parce que y a des projets yo xamante ne ko def sa espace bu loy le nouveau plan national d'aménagement du territoire ñun dinañ ko approprier def un plan de cohérence un euh, plan communal de, cohérence territoriale donc nous permettre de faire def zone industrielle zone d'habitation une zone commerciale Nous avons aussi un garage pour international pour le marché international parce que y a des frontières. et aussi une zone pour xamante euh, gare train bi lay lay parce que train il faut exécuter. le train bi vous, il dina vraiment sukkali de bi bu parce que tey mënuñu exploiter fer bi à cause du manque de chemin de fer nous exploiter marbre à cause du manque de chemin de fer Les chemin de fer aussi dina régler un problème parce que prix sont prix chers cher le marché bi boo les prix bi cher plus cher parce que plus Dakar lay jógee transporter un camion de Dakar à Kédougou da ngay 900 000 francs 45 tonnes bu nekkoon ci train bi ay environ 100 000 francs loolu xam nga 800000 yi nga économiser yëpp yooyu dina wàññeeku ci panier ménagère bi donc il est important aujourd'hui ci développement Kédougou ñu am gaar boobu et ensuite garage international na permettre que nous autour de garage il am ay des euh, infrastructures des ay hôtel ay restaurant ay garage mécanicien ay électricien ay soudeur activité yu bari mëna développer fofu dina vraiment yoko comme comme région bi donc lolu moy développer région bi donc du euh, lenen bon ñi ñi di wax ay société minière non société minière amuñu vacation pour développer région bi société minière il faut que nit ñi xam lu bari société minière mënul substituer à l'État pour prôner le développement de la région société minière c'est des capitalistes qui sont venus chercher un profit donc nous, devons ñoo ñoo régler suñu problèmes sociaux Les société minière xam nga lan que la nguur gi faire a def nguur gi dafa pour que société minière yu nekk ci gox région ñu développer achat local nous développons développer vraiment euh, euh, partenariat entre société minière et ak société yu de ci gox bi mmh parce que qui est le gox bi parce que bo xolé euh ci budget société minière bi presque environ 30 ou 35 millions euh, de dollars pour lo xamanteni sen achat si mais bo xolé action sociale yi RSA e bi 1 million de dollars donc xam nga euh, moins d'un million de dollars moy développé donc nous, ñi lu pour capter 30 à 35 millions de dollars pour que ñu nous investir ko ci Kédougou parce que tay entreprise Kédougou buñ moins, moyen soxluñ sax entreprise minière defal len ay poste de santé wala defal len ay cas santé wala defal len ay école ñun ñi doomu Kédougou mun nañ def lolu parce que dañu am koom boobu dañu am xaalis donc il faut que ngor bi taxaw vraiment pour que Kédougou puisse vivre de ses ressources minières il faut que entreprise minière yi développer achat local bi donc loolu moy développer Kédougou parce que il faut il faut que mu taxaw cadre parce que euh, c'est vrai état bi muy accompagner développement mais état mënul def développement état cadre parce que euh, quel que soit alpha euh, c'est le secteur privé mo yoré développement l'état cadre bi la et souveraineté bi la donc il faut que euh, Lolo comprenne. comprendre parce que nous, bari dañuy jël rek ah non entreprise minière yi ñoo war développer région non il erreur la erreur bu mag la parce que entreprise minière yi amuñu de développement région entreprise minière c'est des capitalistes qui sont venus chercher un profit ils ont investi pour gagner ils vont pas faire euh, investir pour des actions sociales non non non c'est vrai qu'ils font de la RSE mais RSE n'est pas une obligation. Mm-hmm amul ben loi bu ne il faut obligatoirement nga def RSE bi RSE bi du obligation oui bokul ak yenen rew yo xamantene ne RSE bi obligation la mais Sénégal RSE bi du obligation donc il faut que nit ñi comprendre lolu le développement de Kédougou se fera par les acteurs économiques de Kédougou se fera par la population de Kédougou se fera par l'État du Sénégal ah. donc société yi mënuñu substituer wu loolu donc en tout cas euh, la seule voie aujourd'hui mun naa lu développer région lu gawa, gawa gawa c'est que les sociétés minières développent l'achat local amnaane bon lolu yaakaar naa ne bon euh, population moko moo ko laaj population ñoko ko laaj donc euh, population buñu ñu satisfaire woon sama liguey duma ma deuxième mandat donc comme ñom ñi seen bop ñoko laaj parce que dajena ak euh, acteur économique yépp population yépp dajena daje man leen da parce que sonde bu dee kontaan nañ sama liggéey ma continuer li ma nekk def donc euh, loy tax moy laajaat pour continuer et euh, comme aussi def na lu ëpp ñi ma remplacer xam nga aujourd'hui aussi il faut que nit ñi xamné nit quel que soit alpha li ngay def dang koy andak aussi nga andak ngor nga remplacer nit defoo lu gën ci moom ngay ñëwaat laajaat noonu loolu euh, man sama ngor mayu ma ko donc mais boo defee plus que et aussi sa perspective yi euh, am nga am perspective lu ëpp ñi nga àndal donc loolu euh, mun naa ne tey loolu moom ma poussé pour ma laajaat beneen candidature président daal la République bu am bu ma amee confiance wóolu ma jiitalaat ma incha allah dinaa ko uh, yaakaar am naa yaakaar am ndam donc damay ñaan sama collaborateur yeeg ñu xam ne aussi développement Kédougou uh, va au de de ma personne nañ ñëw jàppale ma parce que gis nañ ne def naa loo xamante liggéey boo xamante ne uh, moo gën lu fi nekkoon te sama vision aussi moo gën ci fi ñu fu ma bëgg a jëmale Kédougou lu baax la parce que njëriñu gu looy tax ma ne ñoom ñëpp nañ ñëw soutenir sama candidature pour ma yegale sama deuxième mandat boba après euh, suma yegale lima sama vision bi ni c'est bon parce que euh, aduna tamit non la mëno euh, né euh, continuellement da ngay nek fi donc mais quand même mo commencé liggéey dara limay ñaan askan bi ñu jappalé ma parce que pour njëriñ askan bi la pour njëriñ askan bi la parce que man bala may nek maire donc ma ngi don ligël askan bi donc tay aussi suma ñëwé eh, di liggéeyal askan bi vraiment ñaan na yalla pour askan bi jappalé ma surtout aussi acteur politique yi leader politique yi ñu ñëw japp si parce que xamné affaire bi affaire kédugu la du affaire sama bop la intérêt kédugu la jital luy jëmele kédugu ci kanam la donc buñ ma alhamdulillah buñ ma tanul aussi alhamdulillah parce que yalla lu mu dogal rek moy am donc euh, décision bu président ta jël président moy sama kilifa ci ginaawam la nek décision bu mu mënta jël mooy sama kilifa ci ginnaawam laay nekk ci loolu lay respecté